ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala si biti réew a jot moo mën a xam li nga xam ne moom la rek. Nous avons la générosité de Serigne Mamour jaaro boroom Sam xam nga lu mu wax nee na ñàkk nañ sunu waajuru góor waaye jooyunu jooy nu sëñ Mamor Anta ndax borom saam ak mbaaxam ki doon wax léegi bala maa ñëw ci maamam parce que moom foo tudde maamam embouteillage am Cheikh ma ñëw ci maami kii est-ce que murid yi ni ngi bàyyi xel sëñ Moodu faa jamañam moom ca Mbàkke Kajoor ju jëkk ji la ñëw ne sëñ Tuubaa man jarut may jébbul sëñ bi ne ko Ahmadou Fa Jama lu tax mu ne ko man kat gaa yi koy def yàlla rek la ñuy wut bindil ma écho bi mu ne ko danga ko am mu ne ko ah man daal bu yàlla di déeyaaleeg malaaka yi ca aras fii laay toog di dégg ndéy la la loolu te sëñ tubaa mag ñi ñu ñëw di wax ci moom loo xam ne amul yéen ñi kan moo ci mës a dégg ji ndéy malaaka te pourtant ñi ngi jàngi maraqib ñi ngi def moom defagul dara jibbaloogul bokkagul di déggi ndéy yàlla woo malaaka yi réunion Macky sàll mi rek bu tëjoog ay ministre am est-ce que xam nga lu ñuy wax woo leen di leen déey li war a xew malaaka yi mu leen di jox ordre kii maamam nee na moom da daan toog fii di dégg ndéy la waaye déggal ni ko sunu waa ji di tontu Sëñ Tuubaa dana ko Ahmadou faa Jama mu ne ko Mbàkke mu ne ko dégg baax na lool waaye bokk ci ko gën mu ne bi ah loolu nag jàkku ma yaakaaruma ni doomu aadama am na maqaamam bokk ca moom nag daa foogoon ni sëñ Tuubaa danaan ko man mii ca laa bokk suñ tubaa ko yow danaa la ca boole suñ tubaa ko danaa la boole ci ndey la nee na fi saa si la ma won ne ma maaman gis nga nii ñuy def téléphone suñ daan na ko def wàlliw ñëw fees tel ak yàlla suñ tubaa raxas la maanaam li ñu naan téléphone da nga koy réinstallé raxas ko bu dee ordinateur ñu ne na ko tropicaliser waat léeg-léeg sax ñu jox la téléphone boo xam dañ naan la ña ngi ko defaree ci Australie mais pour mu mar marsaat ci système bi fii foog nga raxas mémoire bi sëñ Tuubaa noonu la def sëñ Maodo Fadiama nee na bi julli jotee faatiha rek mënatuma koo tari bi ma jébbuloo nee na nekk naa Mbàkke Kajoor lu yàgg damay buub ëtt bi di root ndaa yi rek buy julli ji ci bunt ba jàkk ji laa koy xaar léeg-léeg léeg sëriñ bi romb ko ne ko Ahmadou Fadiama yaa ngi toog nee na xamatuma dara waaye nee na ma sax ci di ko liggéeyal di ko liggéeyal ba mu jig nee na mu toog ba yàgg ne ma Ahmadou Fadiama kaay dangaa bëgg ku la tas takkaat la am ku la cuuj tas takkaat la am nu cuuj la mooy maanaam bant dugub buñ la ko joxoon wala banti socc takk ko nu toog ba yàgg mu yolom maanaam boo ci ruuxaatee ay bant day teŋ sëriñ bi ne ko dangaa bëgg nu nu nu tasaat ko takkaat ko am nu cuuj ko rek mu fees maanaam la nga yoroon nu wéyal lu ko wala sëñ bi nag sëñ sëñ Ahmadou Fa jamane ko Mbàkke tas ma takkaat ma defal ci yow li ma li la soot def ko ci man sëñ bi da koo defar ba mu jigi dégg nga li kiy wax sëñ maam Seex nee na sëñ bi da ne ko wàcc naa la ci lépp ba mu des nga may ñaan waaye mujj na sëñ Tuubaa daan na defar góor ba mu àgg mu ne ko yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la gërëm naa la waaye dellul ci Ahmadu Fadiama mu dolli la kookoy kan mos naa ñëw ne sëñ Tuubaa Mbàkke man de leen na ma jaaxal sëñ Tuubaa ne ko dum doon la ilaha illallah wuy ma léeg-léeg ma dégg ñu naan def gis aha du loo du loo du loo du loo réglé c'est normal danaa daa ma sa ñëw ne sëñ Tuubaa man de ndeeyi malaaka yi ma daan dégg déggatuma ko sëñ bi ne ko da leen tiim ma ñëw ci maami kii sëñ Mbàkke Buso waaw mais sëñ bi sëñ bi da ngay cant wala màggal ngay def wala yow xam li nga dajale ah chèvre sëñ Modou Fadiama sëñ Mbàkke sa suñ suñ mbàkki busu moom dama ko jëlale ak i rakam ak i magam mais dafa am leneen lu ma bëgg wax ci maami kii kii maamam day jaamu yàlla di jaamu yàlla ba ne du lekk du naan sëñ Assane maa ngi lay nuyu big naa lool ci fekk gi ma la fekk ku taxawu suma ak sama gox kii moom bu naroon a tuxu maa ngi njëkk lànk bu mu dem laay wax kii maamam daawut lekk du naan bu ma saana taxaw ci ndànd foy foy lu am dara ngelaw ñëw ngelaw li mën na koo ëf mu daan du lekk du naan sëñ Tuubaa yëg ko ne wool leen ma Mbàkke Buso suñ Mbàkke Buso ñëw mu ne ko Mbàkke Buso dégg naa lekkoo naanoo te yéen doomu aadama yi bi leen yàlla di bind da leen a bind ci ngeen di lekk ka naan waaw ah moom moom moom moom beneen affaire la sëñ Touba hors série la sëñ tubaab beneen affaire la bëgguma cee sax moom bëggumaa dugg ci moom parce que xam naa sama bopp ci moom bàyyi rek ma ne ma ma ma ne ci ñii di raay rek xam nga lu mu ko wax lu tax doo lekk doo naan mu ne ko mbàkke ay nit a ne ma ma yow dañ maa yaakaar àddina ak alaaxira dama dégg na yowmal xiyaam xeer sax dana ko xalaat ba xeer tooyoon na ni ndawal di ko xalaat ba wow ma dégg yàlla tëkku ci ay yonent tëkku ci ku ne mbooloo mi ne man lan yaakaar war tax na lekkatuma naanatuma sëñ Tuubaa ne ko mbàkki bu so lekkil te naan ku ni topp maa tax yowmal xiyaam buñ càggee seen yoon nekku ci maa koy lijjanti ma ñëw ci maamam ba tey sëñ mbàkki bu so bi ñuy dem màkka ñu ne ku matul 60 kilos doo dem 60 kilo tubaab bi booba fi mu ne boo dee dem màkk dañ naan la demal pikiru nga pikiru ñu defal la visite après nga dem def contre visite ñu jox la carnet de vaccination loolu amul woon dañ la 60 kilos parce que bato la ñuy jël bateau bi fii lay jóge bu jógee fii jaar Maroc dugg Égypte dugg Brésil dem France port Marseille jóge fa dem Égypte doog a dugg màkk moo tax bu nu ma saana wari rek dem màkk poids boobu nag boo amul 60 kilos doo dem ñu teg sëñ Fallu mu doon 60 sëñ bi nee na mi ngi ak boo xam ne bi ñu tollee marché yi lañ ko faxe maam Cheikh Ibrahima Fall ñu yónnee leen pour la leen jàllale fere yi fax bi ko Cheikh Ibra defee ak mandat bi yëpp mu ngi ci moom sëñ Fallou ko yónnee booba bi ñu ñëwee ne sëñ Mbacke Bousso dañuy dem màkk sëñ bu Bousso sëñ Fall dane ko nu waaj mu ne ko lu xew mu ne ko nu dem màkk mu ne ko màkk la koy dem awma ko ooma lu ma fi bàyyi ooma lu ma yóbbu mu dem wax ko maam Cheikh Anta booba cent francs lañ daan fay. suñ gaawaan ne ko lu tax suñ fàll ne la nan dem màkk nga lànk mu ne ko dama koo waajalul mu ne ko danaa la jox dund ren ba déwén danaa la jox nga tawaaf comme dañuy laaj sant kilo nag fii mooy problème bi alaaj suñ tàkku ñëw mat suñ Ibrahima Dia ñëw mat sëñ Ibrahima Dia ak sëñ Mayoro Fall maam Seex Antaay seen daawoo sëñ Mayoro ne ko damaa bëgg yoon woo xam ni damay bëgg Euh, ku ma ci àndal mu ne ko Ibrahima Dia laa ko gën a yéene mu woo sëñ Ibrahima Dia sëñ Ibrahima Dia ne ko Mayoro laa ko gën a yéene mu ne ko ginnaaw yéenante ngeen ko yéen ñaar ñëppay dem moo tax ñun taalibe yi na ne yéenante lu rafet waaye li doy waar mooy dañoo teg ku nu teg nga mat alaaj sëñ tàkk ko doon presque quatre-vingts kilos maam Seex Anta mi ngi doon mesure deux mètres zéro deux ku nu teg nga mat nu teg sa maam ju tedd ja sëñ Mbàkke Bousso mu doon 35 kilos li manqué daa bari du lekk du naan sëñ Mbàkke Bousso daa tuuti tubaab yi ne matul mu romb sëñ Fall ne ko waaw yoon wi yéene ngeen ma ko waaye duma ma dem mu ne ko lu tax mu ne ko ñoom nee nañ matuma waaye ñoom ñoo ñoo manqué mat nga sikk nan dem ñu tegaat la ci kaw biñ leen tegee ci kaw suñ Falloo ko gàll loxo aiguille bi daw 60 kilos tubaab bi ne ko yaa ko teg loxo suñ fàllu teggi loxo bi joxoñ ko aiguille bi daw 70 kilos tubaab bi ne ko yaa ko joxoñ mu toog ba yàgg ñu ne ko bu bul yëngu dinañ ko tegaat ci kaw mais bul def benn ses suñ fal naan ko ñu jaam mbàkke mu ne ko nee ma jàkk rek da koo xool aiguille bi daw 80 kilo kon boo dajalee ñii sëñ Mbàkke bu soo wàcc màkk di xutba naar yi jooy naan kii dañ dafa tent yaramam nan ko xoolaat keroog maam Seex Anta daa dig ba ne nañ ma xoolal ñu ne ci sàppe seet maa leen di woddu ñépp mu woddu leen kon soo leen defee lii ngeen def ma ñëw nag ci ki nga xam ni maamoon maa ni man maa ni soo koy tudd embouteillage di am man nag maa ni Baye Fall du añ bi du reer bi xorom see xorom nag mënta ñàkk ci ñam ndagam nar naa yoon moom booy sombilu sax foog nga ne laalal ma ci xorom mais boo dëkkee ci koñ bi ñu toog ba yàgg gis la ngay ngiis di jeex dem seeti docteur mu seet la ne la def naa analyse boo lekkatee xorom faatu wartu tax ngay ñëw ci koñ bi naan baleen xorom yow lañ ko tere seedu ku ci doonu dara nang ci maan dañ ne ko la nga gën a bëgg la nga gën a bëgg la koy may mu a sama bopp ma gënal jox naa ko sëñ Bamba te tam ma wax la ne moom du ndar-ndar sëñ Tuubaa ku ma sa seexal dalay yebal ci sa dëkk mbaa mu loolu loola dëkk waa léegi lu tax ndar nekkoon capital de la AOF géographiquement ni ndar mer ndar bindoo nii am géej am dex nit ñu weex ñu ne fa nit ñu ñuul ñu fa yaakaar naa traque sax ku koy taf fa gën a xumm nga koy taf Cheikh Ibra Fall mooy traque bu Sëñ Tuubaa neewu ko demal gébb neewu ko demal ndànd demal ndar ca biir nit ña dugg ca seen biir aw ca marché ya ba ñu xam man Sëñ Bamba maay kan bu ma sànni dox ci rue de bon tubaab yi dañuy génn di ko portele di ko estimer toi bi dem nañ ba ne il incarne à sa personne toute la gentillesse la générosité la présentation ñu ne tubaab bi kan mooy bi Ibra tubaab bi dafa def portale ci bi Ibra de ñu ne ko kan mooy bi rek mu ne der ba dafa ñuuloon liis ku njool ca kaw na woon ñu ne ko ak lan mu ne karaw gi dafa sëq baram bët yi sew gis bi yi tubaab bay wax yéen yi dafa sëq arcade bi rafet ñu ne tubaab bi ak lan mu ne bakkan bi bakkanu nit ku ñuul la bu rafet gémmiñ ga yaatu ñu ne ko ak mu ne Cheikh Ibra ay soxnaa ma gënoon a tedd ci réew mi ay doomi buur ñooy soxnaam ñu ne tubaab bi ak lan mu ne ku mel ni moom mosuma koo gis fan la gënee jamono tubaab bi nee ne Touré Atman Fall kan mooy maamam fils de Déthialaw Fall ñu ne fan ñu ne banlieue de Thiès ñu ne tubaab bi bindal li may wax mu ngi ci livre bu ñuy wax Cheikh Ahmad Bamba face aux autorités di colonial tubaab yi bind wax ne signalement très noir de peau taille au-dessus de la moyenne frontaux élargis, chevelure crépue et broussailleux, œil petit et vif, arcade solsolaire, saillante, bouche grande, nez épate, alliance dans le pays, mariée avec les femmes les plus nobles du Baol et du Cairo et de Sine Saloum, descendante directe des anciennes familles royales indigènes Guit et Drobé. Ces familles ont été rivales pendant plus de 300 ans. Ces femmes se nommant premier Gensiri Fall, fille de l'ancien Damel du Cairo, Omari Ngone Fall deuxième, Gann Diop et tous les deux fii du Damel Lat Joor quatrième lan laay satafal fii de Sambalaw bi tué à Tivaouane par lieutenant Chauvet en 1886 cinquième benn Fall veuve de Demba War sëñ Moussa Ka ne ko yaa jëkk a jébbale sa xol fekkoon nga gaañay xor xorol la lay taqal ñi lay setal yaa xàll ngir nii nuy doxe yaa xam sëriñ bi yaa xarañ daawoo werenteekub sëriñ bàjjo bi yaa bari njariñ waane wi yàgg ngaa naxe am ngay dërëm am ay ngërëm jël say dërëm jënd ay loo mës am tàbbal këram ay junni faal nga daa joxe jox nga ko àddiyee giléem yu sëfi ngurdu sëfi koom soldaar sa yaa joxe sa doom fàllilu faal am na toxe sa ndaw da daan dem ba gabon di dugg ca gaal ya yene rong di yor ay saaku yori bon doo denc lëf ba muy maxe jaaraamaa Cheikh Ibra Fall làmp ngënee ni bàmbataal kon nun amuñu benn problème man nag Mbàkke li ma la jàppit naa ko wax danga nga maa fekk Gabon ci dignité ci personnalité keroog bi su maam Cheikh Anta bañ fa doon màggal ca Batavia. man Serif Assane la ma tuddee sa ñëm dafa dee saab Serigne comme naqaree comme neex yaa xam ma ne. ñëw leen. ñëw leen ngeen fekk ko jox ko adde maam Cheikh Ibrahima Fall ku bëgg sa aaju faju. nga waaw waaw géwél moom boo tàqaliwu koog moom moom da ngay problème. ngeen mi wala si biti da ngeen di abonné fii si Tawfekh Production ngeen xam ne xam